en kii El Hadj Malick Diop ancien maire ak député Cheikh Tidiane Diop. di indi sargal bu président Macky Sall di indi ndokkeelu président Macky Sall di di sama tur parce que man fii fi du fi gan doom laa tudd di ñaanal suñu waajur fii suñu Abdou Aziz Al Amine xarit bi te mu yàgg fi te wér. ko ñaan ñëpp nañ ko tëdd ñaan ko ne yàgg fi te wér yàlla may ko tan bu baax a baax a baax mu nekkaat suñu kanam ba ca kanama ba ci kanam ñu ngi koy ziar di gàttal di gàttal baax vraiment ñu koy ziar di indi nuyoo président di indi ziaru président di indi li nga xam ne président waxoon na ko mënoon na gudd trop parce que président nee na mi ngi koy gërëm mi ngi koy sant mi ngi koy déglu kontaan na ci moom xam na li mu ko defal yëpp ci élection yi xam na li mu koy ñaanal xam na lépp vraiment mënu ko fay mënu ko fay mi koy sant fa sant yam mi koy sant fa sant yam di ko gërëm sargaal di ko ndokkeel wasalaam ma ci ñu waate awoon ñëpp wax yéen ñëpp ngeen ñaan ci sëriñ bi yàlla na ko fi yàlla bàyyi ci kanam te may ko te may ko wér te may ko wér mooy suñu mooy suñu njariñ mooy suñu lépp vraiment yàlla na ko yàlla may fan wu gudd may ku wér vraiment may ku wér loolu laa ci doon wax di sant ñëpp di sant waa Tivaouane yëpp di ñaan waa Tivaouane yëpp bu ñu demee seen kër dañu continuer ñaan yi ñaanal sëriñ bu baax a baax a baax a baax loolu laa ci doon wax di gërëm ñëpp di wax ni président sant na ko trop trop trop trop sant trop trop dégg si président sant noonu kenn ko xamni kilifa am na sant na ko torop torop torop trop moo ñun ñepp ñu koy sant parce que lool bu ko sant bu ko président sant ñun dañ ci contane bo amé kilifa président sant ko dañ ci contane donc contane na ci wa salam du nuyu ñepp di ñaanal ñepp di ñaanal ñepp yalla nañ téy teewaat ñu ñepp deen tabaski bi ñu def ko ci jamm ak salaam jërëjëf serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di laaj seen jamm di laaj jàmm président di ñaan yàlla defal nu li mu wax te mooy sunu njiiti diine yàlla bàyyi leen fi ñu dund ak ñoom lu yàgg a yàgg seen yàgg moo baax ci réew mi kon nag nu ngi ñaan yàlla yàggal leen fi may ñaan may leen dund gu yàgg bu leen mayee dund gu yàgg

may leen it cofeelu réew mi loolu yàlla na ko yàlla def may leen itam respect njaboot gi yàlla sëyuñ ci réew mi xuloo yàlla soril ci réew mi xuloo ak xëccoo ak waxante lu ñaaw ndax li nu boole lu bari la te li ñu teqale lu tuuti la te lëf bu ko ay nit bokkee te mënuñu koo séddoo day jar ñu tiim ko ànd ko moo tax xëccoo bi bu jeexee ñu delloo si bokk gi delloo si ak ànd delloo si ak bokkoo kenn ku nekk xam ni mënoo bàyyi sa morom dem sa moroom mënulaa bàyyi dem xëccoo bi du ko mat kenn ku nekk na nga fexe ba sa mbokk ngeen nekk benn xëccoo mënta ñàkk waaye bu jeexee nag nañu delluwaat bokk ndey bokk baay ñu nuyu ñëpp peuple sénégalais bi yëpp peuple islamique bi yëpp ndokkeel leen nee ci iidul kabir bi nga xam ni sunna si yonent صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ñu fekk ko fi di ko roy te moom lan nu royloo royloo wuñ ñu kenn lu dul ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee kon ñu xormaalante ormal kilifa yi kilifa diine yi ñu ormal kilifa adduna yi ñu ormal leen mboolem njaboot gi ñu ormaalante ci seen bopp mbooleem association yi ñu ormaalante kenn ku ne xormaal sa moroom ki nga xam ni moom la fi yàlla teg ñu ormaal ko ndax mooy kilifaam nit day ormaal kilifaam soo ormaalul sa kilifa boo doxee ñetti tànk gis koo xam ni moom mu ngay warmaal kilifaam parti politique yi nañu ormaalante nañu bàyyante xel ñu bokk li ñu bokk séq li ñu séq bu jeexee mu jeex ba mu ñorati bokk walla lu jar xëccooti bokk mbooleem secteur yépp ku ne xormaal sa moroom loolu mooy defar réew mooy ormalante kenn ku ne xam nga li nga séq sa moroom moo ëpp la la teqale ak moom su ko defé rew mi mana dal nit ñi mana nek ben yëngal sa rew du ndam ndax yàlla wax na ci alquran ittaqu fitnatan لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه يا ينتبه صلى الله عليه وسلم وقت حديثني الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها فتنة دي تاشو إويل فنغبق ميامفا دفا يم دفكو يجيجي te dana toll fo xamni yow mako ko mu gatt rek ngay bëgg su ko defee kon ñu baña yëngal fitna ci réew mi Sénégal réewu jamm la ma sa ca suñu maam ya ba nëgëri ci jàmm rekk la ma sa nekk ñi fi nekk di ay nitu diine diine lan fi saxal diine jooje ñu li def baas ba mooy jàmm moo baax su ko defee ñu bàyyante xel bu baax a baax yéeneente jàmm moytu wax ju garaaw sama baay daan na wax ni wax laaj na ñetti yëf yow miy wax na xam li ngay wax na nga xam fi nga koy waxe na nga xam kan ngay waxal neena su yooyu dàqo noppil su ko defee kon ñu bàyyante xel rek bokk wax wattu wax wax mën naa indi lu ne ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi nuyu kilifa diine yépp bàyyiwuñu kenn la ko dale ca Sidil Muxtaar suñu mbokk mu baax ma ca Tuuba ak suñu mbokk mii ñu dendal di maam bu Kunta ak mbooleem li wër Tiwaawan kilifa diine yi fi nekk yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel ci bés bi di leen ñaanal yàlla bàyyi leen fi te yéwénal seen mbir ni muy yéwénale sunu mbir ñu ngi nuyu itam mboolem parti politique yépp di leen ñaanal ñoom ñépp jàmm di leen wax ñu jàmmoo ci seen diggante secteur yépp nañu jàmmoo nekk benn moytu xëccoo bu tàng xëccoo bu tàng mooy indi jañante bu tàng te jañante bu tàng nag mën naa indi lépp lu ñaaw kon nag ñu moytu ko bu baax a baax ñu ngi nuyu mboolem julliti Sénégal yépp ak mbokki réew mi bàyyiwuñu kenn góor ak jigéen ndaw ak mag nañu nekk benn joxante loxo bokk ndey bokk baay loolu mooy defar réew waaye waxante lu ñaaw ak sànnante kàddu yu ñaaw du defar réew ñu ngi koy dénk mbokk taalibe yépp di leen ñaan nañuy rafetal seen wax te taxaw taxawaay yu rafet tey woote jàmm ci sunu réew ñu ngi nuyu ñépp

TV, la lumière de la Tijania.